Fata Compagnie, une entreprise de vente et de location de voitures de dernière génération, vous offre une large gamme de services de pièces détachées de toutes marques. De l'entretien en passant également par le lavage de voitures. Pour bénéficier de ces nombreux services, vous pouvez les trouver à

Une seule adresse, le complexe sportif Les 3 Chez nous, nous vous offrons un programme alléchant avec les meilleurs coachs du sport et les meilleurs masseurs qui soient. Le complexe sportif Les 3S également un spa de dernière génération pour une bonne remise en forme, sans parler des matériels sportifs de haute gamme. L'établissement est situé sur la route Rufisque en face

yéen ñi bëgg lu baax di wër qualité ak tendance KSBT faj na seen aajo KSBT kër Serigne Balla coro chez Youssou Dione fii la yu baax yi te rafet daje lépp lu ngeen bëgg ci tissu ak tissu bu mu mën a doon xam leen ne fii la spécialiste tissu yi nekk tissu góor wala tissu jigéen ay tissu yu tendance brodé Marie Guèye bi jigéen ñi bëgg ci seen xol am nañu original bi am nañu deuxième choix bi tànn sa bu la neex la am nañu brodé Marika ci façon yëpp KSBT kër Serigne Balla Thioro chez Youssou Dione nañu ay tissu sañse yu rafet bees tàq yi mujjee génn nag kaay leen gisal seen bopp voile brodé yu yéeme yii yéen ñi bëgg cuub cuubu palmaan première qualité wala deuxième qualité boo fi ñëwee sa aajo dina faju bépp sañse buy dooli jigéen ñi taar wala di wane ndaanaanu sañse ñoo ngi fii champion tissu jesner baa ngi nii bazin gold bazin deuxième choix tissu brocart ngir góor ñi wala bépp xeetu tissu bu góor di soxla jigéen ñi waxatuñu dara góor ñi waxatuñu dara tailleur yi waxatuñu dara KSBT kër Serigne Balla Thioro chez ndeysaan vente tout genre de tissu ñoo ngi fii ci marché Ocass centre commercial Serigne Moustapha Massamba suñu numéro téléphone 77 187 81 14 77 187 81 14 wala 76 663 76 97 76 663 76 97 KSBT Kër Serigne Balla Thioro chez Youssou Dione tout genre de tissu kan du xale bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV di ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dunde fii ci Ladoum TV Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan cow chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu yaram santé animal dina saytu sa malaanu mi dunde fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu ngi nga mën a wax jaar-jaar dang ko seetaan bu la dara raw visibilité dang am

salaamaaleykum téléspectateur Ladoum TV ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement ñëwaat ak yéen seen émission fi ma jaar comme li ñu leen ko waxee rek seen émission fi ma jaar na nekk émission bi nga xamante ni si émission bu mucc ayib émission bi nga xam ne xeebul benn bergerie xeebul benn mbaar tey nag ñoo ngi fii si Caaroy Caaroy jumaa ji seet fi un très grand champion ñu koy wax Babacar Dia bergerie Dia Family ñu fas yéene dugg nag waxtaan ak moom ci élevage démb ak élevage am tey ci seen émission ban fi ma jaar ñu ànd ak suñu télévision Ladoum TV. Babacar ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu wax kan mooy Babacar ñu bàyyi la nga nuyoo ak axlu élevage. ak Ladoum waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ladoum TV maa ngi leen di siyaar bu baax di leen bëggee di kontaan ci yéen macha allah seet bi ngeen ma seet bi naa ci mbégte lool macha allah ñu fas yéene jublu si liggéey bi ci ñuy jaar jaar pour élevage fu ñuy jaaree ci si yi quoi waaw. macha allah loolu am na solo Babacar nee na. ñu fas yéene waxtaan ci jaar-jaaru élevage kon dafa wuyu tur bi dafa wuyu borom maanaam fi ma jaar Babacar lan moo la booleeg xar. waaw xar xar moom yàgg naa ko bëgg trop ndax man moom yàgg naa sàmm waaw yàgg naa sàmm bu ma ñëwee Dakar fii ci wax dëgg yàlla deret bi da see da bu baax a baax ma topp ko ci bëgg ko lool nag macha allah. di yar xari xari gàtt yu kurkur yi continué ci yar yar yar yu yàgg 2015 ba 2017. Euh, ci ba 2016 ci laa ko commencé di yar mu jigéen laa commencé di dem di séente fréquenté gars yi ba xam lan mooy laadum sama benn waaye yóbbu ma ci damloo mu continuer foofu dam dem ci damloo gis foofu benn euh, famille la mi daal mu gis si moom mu tuusi ma lool macha allah léegi ba ma demee fekk moo ko fa ma dem fekk fa soxnaam mu jox ma numéro mu woo ko man ak man ci xarit bugg léegi si la ma man dimanche laay am jot après bu dimanche yee nga ñëw fa. ñu continuer foofu ñu foofu dimanche bi jot ma woo ko dem foofu léegi mi ne yow fan nga nekk ma ne ko man caaree gaar laa nekk si jumaa ji mi ne ma après naa ñëw sa gétt xool waaw ba mu ñëwee continuer ñëw fii ne ma da ngay génnee si xar yi gàtt yi yëpp da ngay génne yëpp nga dugg ci laaru yi xar yi ñuy wax a ko waaw ba ma waxee dëgg sax xoo naa kii man ah kii daal day wax rek sama xar yi baax yi nangam nangam macha allah ñu taxaw foofu ñu taxaw foofu. bi mu la waxee loolu lan moo tax nga xalaat ne kii daf ma bëgg lan lan moo tax nga xalaat loolu daal. waaw non ak dëggum maanaam waxam bi dëggum fasaayu ci laa xam ne kii du wax boo xam ne day wax waxi kii nii rek ci laa continuer di dem visite di dem visite di dem visite nga xam ne kii lu wax ni la réalité waaw ci laa ëllëg si nag di génnee sama xarit ndànk-ndànk di kii dem mu jaay ma benn femelle waaw femelle bi mu ko jaay dafa tëb woon si boy taala ñu wàccee fi mbote bu rafet macha waaw ci laa commencé waat na commencé waat di gën a ñeme ci laadum xam nga mu toll ci ban at. 2017. 2017 waaw moom bu may jëflante moom 2017 la mais xar yële moom 2015 2016 si laa commencé woon ci xam mais 2017 si laa commencé dugg ci laadum bi 100 waaw. macha allah loolu am na solo deux 2015 2016 ci la dugg ci fekk mi ngi yoroon ay kurkur 2017 mu découvrir laadum dugg ci. premier vue bi nga njëkkee gis laadum premier vue bi nga njëkkee gis laadum par rapport ak yow kurkur yi nga yoroon sa kër lan nga wax ci xar yooyu non dañoo wute ba ma njëkk a gis yéeg ci gétu daam loo moom auto automatiquement dama dama dama découragé ci xar yi waaw boobu laa gën a kii nag ci ci ci xar yi xar yi laa yii moom daal faaw mu liggéey si ndax bu fekkee pour xam xar ab deret bi karo bi yàlla may na ma ko mën naa ko bu dee wàllu yor bi entretien bi yëpp mën naa ko ci laa xuus si dinam nag wax dëgg yàlla sama grand dame loo jàppale ma trop nag yombalal ma xarit trop teg ma si yoon teg ma si ak si moo xam ne ni daal wax dëgg yàlla amu si benn lu mu siy rëccu waaw suma xamante moom daal macha allah wax dëgg yàlla moom moom bu ma nekkee ci Elhadji gannaaw yàlla ba tey si moom la bu mu ko ñemee ba tey dim ci moom la macha allah ah loolu tawféex la macha allah loolu am na solo kon du ñu dugg Caaroy rek te du ñu nuyu Grand Dame Lo ak bergerie Xande Njaaw Njoobeen ñoom tamit ñoo ngi leen di béggee bu baaxa baax di leen wax mention spéciale seen taxawaay ci élevage bi fii ci Caaroy particulièrement Sénégal waa joué nañ ci rôle bu ama ama ama am solo tubaar fakàlla waaw bu ñu ñëwee ci biir gétt gi ba tey premier sujet boobu la Dame Lo joxoon nan nan nan nga def ba jëflanteeg moom ba récupérer premier sujet boobu waaw premier juge moom yéene rek ak xewal yéene dama dem mu defal ma ci yéene ndax bu ma njëkk a dem foofa cinq famille la woon yu añal yoo xam ne tëbu nañ mi ne ma xoolal ci yii boo ci bëgg ma jaay la ko. kon yow yaa tànnal sa bopp wala moom moo la tànn. non bu ma tànnoon man dana ma bu ma doon yow bii laay jël ma bàyyi man bu ma tànnoon man continuer bu ma jël mu wax ma ci ay secret ba tey nii dama koy gis loolu moo tax yemaloo ma ko moom daam dara. macha allah nga fàttali ñu secret yooyu mu la waxoon ci femelle boobu mu ne mu tànn lool. secret yooyu nañ bàyyi dana gëmal su bopp rek gëmal su bopp ngi liggéey te ba ñu déglu ñenn ñi waaw gëmal su bopp ngi liggéey dëggal su bopp te loolu mu wax man a dafa fekk man ma ne ci lépp lu may dem te amu ci kii rek du ma ci dem waaw loolu yàlla defal na ma ko. waaw ah, loolu am na solo kon yéen ko déggandoo da ko ne conseil la ko jox gëmal sa bopp te élevage bi ku gëm sa bopp rek maanaam da ngay yegg au sommaire. ñoom ñii tey gëm seen bopp moo leen tax ñu yegg fi ñu yegg macha allah ba ñu juddule fi yor fi maal bu ñëpp di coow muy booy taala tubaar fa kàlla yoraat fi beneen maal bu ñuy wax patience macha allah kon yow nga dox ci ay tànkam mu mu mu mu mu jàppale la maanaam mu nekk sa coach moom mooy sa coach ci élevage. waaw non sama coach la sama mag la suma patron suma lépp la daal moom daam dëgg yàlla sama lépp la. waaw ah, loolu am na solo kon daam tamit ba léegi mention spéciale eh, femelle boobu mu ngi ci biir gétt gi ba léegi wala am na fi njeexital ci gétt gi ba tey. non mu ngi ci biir gétt gi ba léegi. mu ngi ci biir gétt gi mu ngi jur ay doom yu mucc ay bi wax dëgg yàlla mu ngi ci biir gétt gi après naa lay wan ci biir. moom femelle boobu doomu kan la woon. doomu karkar la. waaw doomu karkar la waaw. femelle bi doomu karkar la waaw. dafa tëb hmm. woon ci boytaala. macha allah hmm, dafa tëb woon boytaala wàccee fi Cheikh euh, bu jigéen waaw. waaw ah, loolu am na solo laa Ladoum TV yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo loolu am na solo bi ñuy dugg si si gétt gi dañoo dañoo dugg si rek ñu gis décoru bergerie bi bi ñu gisee décoru bergerie bi rek suñu xel dafa dem ci bergerie Mame Ibra ngeen niroole trop nag bergerie ban ban lien nga am ak moom Mame Ibra non dama koy kii nii rek euh, mos nañuy déggante sam nag ay yoon waaw mën nañu déggante ay mais jëflante guñ ci xarit nag wax dëgg yàlla mais sama idole la daal wax dëgg yàlla moom itam lu muy càmmee neex na ma trop waaw neex na ma trop macha allah. loolu am na solo moo tax nga def décor bu nice bi sa xel day boo boo duggee ci bergerie bi rek sa xel day dem ci bergerie Khadim Rassoul tubaar fakkaala kon téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo ñoo ngi fii ci caaro yi jumaa ji bergerie Dia yi waaw fekk fii Babacar Dia muy liggéey liggéey bu ama am solo ci élevage Babacar li nga investir ci élevage bi à peu près à peu rek nga wax ñu à peu près li nga investir. investir bi te ñu koy bàyyi noonu rek continuer di liggéey rek ñu ñu bàyyi noonu rek ñun moom am ndongo daara boo xam ne dañuy réussir patience pour si xar yi rek dëgg la dañ ciy utaale xaalis mais li ci ëpp daal moom dañ ciy gën a kii pour patience nañ bàyyi kii bi noonu rek réussir bi ñu ci defa yooyu daal waaw. Babacar yaa ngi ciy gis sa bopp ci élevage bi waaw bu baax. ci naka ci naka. ci lépp kay wax dëgg yàlla ci lépp ci amour ci ci koom-koom lépp wax dëgg yàlla macha allah. yaa ngi café. waaw am na ñu may kafe moom wax yàlla am na ñu ñuy café am na ñuy moom macha allah am na ñu ñu téye nag waaw pour liggéey mais am na yoo xam ne si ñu nit bi ñëwee waaw ñu def si te yàlla tax ñu ñu jox leen ñu dem liggéey comme ni ñu ko suñu patron daam doon defee waaw incha allah. macha allah kon cela veut dire que bergerie daal ku fi dugg loo am rek war ngaa génne xar yóbbaale. waaw non amul problème man kii bi ma boolee nit. Eh, yenn xaalis yi yoon du boole boo ñëwee bugg daal da nga doon sa waay te sa wërsëg nekk si ci ci kàttanu yàlla moom da nga ci da ci da nga ci da nga am waaw du mën a ñëpp mën nañ ci am nag mais ku sa nekk si gétt yi rek moom moom incha allah da am ci kàttanu yàlla macha allah loolu am na solo xar bi nga jaay bu gën a cher ak bu gën a yomb non sans départ nit ki moom mën na ñëw sax xarit nga ñëw nga jaayee ko sax un million ni mën na ñëw nga jaayee ko sax cent mille sans départ si si nit ñi relation bi ak nuy kii bi ñëwee daal waaw te nit mën na ñëw ñu jaay ko lu seet nit mën na ñëw ñu jaay ko lu nit ñoom mën na ñëw ñu may ko ko mu dem waaw loolu yëpp si élevage bi la waaw. Ah, loolu am na solo nit mën na ñëw ci comportement am ni mu ñëwee rek ak relation bi ngeen seq rek dana yóbbaale xar kon téléspectateur Ladoum TV ñëw leen fii bergerie Dia yi xar yaa ngi fii rafet nañu tubaar fakkaal la toppatoo bi am na solo ku gis xar yi daal macha allah mention spéciale daal. à bergerie Dia Family tubaar la Babacar ñu wax na ci biir bergerie bi gestion xar yi maanaam xar yi ni ñu rafetee nii toppatoo bi ni ñu rafetee nii ndax tamit dañoo am euh, vétérinaire buy ñëw di leen suivre wala yow yaa koy suivre ak xontu beeg affaire yooyu quoi. waaw xont bi moom ñun ñoo ci nekk wax dëgg yàlla di góorgóorlu rek man moom samay xar du am ay yooyu wax dëgg yàlla bu dee wàllu vétérinaire dama ko fonk lool sama xar. waaw bu mujj gis nga mel noo xam ne kii wut am naa samay vétérinaire ku mel ni docteur Etienne docteur Fallou waaw yooyu samay vétérinaire la samay waay lañ wax dëgg yàlla am na yokkaay yoo xam ne ni nag mën naa koy kiyal sama bopp waaw mais am na ñoo xam ne dama leen di woo bi dee wàllu xonte gi nag moom moom dañ ci dañ ci jaayante moom kooku moom dañ ci jaayante waaw wàllu xonte gi moom duñ ci bàyyi benn xar mii am ab kii nii noonu noonu waaw xonte gi moom yàlla mu ngi suturaal bu baax a baax a baax xar yi di mel ñoo xam ne ni mucc ayib la waaw waaw ah, macha allah loolu am na solo xar yi kan moo leen di toppatoo yow yaa leen di toppatoo sa wàllu bopp wala da nga am équipe bi nga xamante ni si moom mooy gérer xar yi di leen toppatoo xont beek sang beek affaire yooyu. waaw man maa ci nekk man maa moom gétt yi maa ci nekk Mor Sène waaw da ci jàpp bu baax bu mu dem bu moom mooy gérer xar yëpp mooy toppatoo. bu dee wàllu sang bi tim am naa samay boy yoo xam ne dañ may jàppale di sang ku mel ni Yaxya Mbay waaw damay jàppale bu baax a baax baax ci wàllu sang yooyu yooyu. waaw bu dee wàllu yooyu moom wax dëgg yàlla méttiwul yooyu moom am na ñu mu ciy jàppale bu baax a baax ci wàllu ànd ak man ci wàllu liggéey bi waaw di ci taxaw bu baax baax a baax a baax nag macha allah loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo kon nag ñu dugg ci biir càmm càmm gi nga présenté ñu xar yi benn par benn ñu wax xar yi fi ñu bokk ak xar yi ni ñu rafetee tubaar fa kàlla ànd ak seen télévision Ladoum TV ak seen émission fi ma jaar mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV nit mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fi ma waaw comme niñ leen ko waxee rek euh, téléspectateur Ladoum TV ñu dugg ci biir gétt gi càmm càmm gi génnee sujet yi nga xamante ni si bergerie Dia Family moom lay liggéey Babacar ñu fekk fi benn femelle bu rafet nga présenté ñu femelle bi. waaw femelle bi doomu Karkar la waaw ñu ngi ko tuddee madame Camara waaw. moom mi ngi mi ngi toll si ñaata weer. Euh, ci ci ci année bi war na am 200 de. am war na de. Hmm. Hmm. amagum na si yow doom wala. Euh, non amagu si man doom dafa ëmb ay ceex nii. ay ceex waaw. Hmm. ndax amiin amiin gisoon ci moom bi nga koy non allah doomu kaar kaar la kaar kaar moom doom kenn ku ci ne xam na ay doyam ay wiram waaw loolu moom a gën a dugal si moom waaw macha allah. Hmm. tubaar fa kaar la yéen ko gisandoo kii doomu kaar kaar la mu recruté ko nag ñëpp xam kaar kaar askanu sa eh, élevage ñëpp xam nañu kaar kaar ak production bi waaw ñu fas yéene continuer waar rek duggaat ci biir càmm gi génnewaat yeneen sujets yi nga xamante ni si moom la Babacar téye fii. macha allah. waaw ba léegi rek ñu ngi ci biir euh, box bi ñu gisaat fi beneen euh, femelle bu rafet Babacar nga présenté ñu kii. waaw kii doomu Boy taala la yaa doomu Karkar la waaw doomu Karkar la mu ngi ëmb ay portem nii ay Cheikham waaw moom Xadigéey la tudd waaw Xadigéey. Euh, doom. non non bii tëng la nii bu mu ëmb nii mooy premier doom. Babacar yow kaar kaar moom saf nga ci sàpp de. non kaar kaar macha allah wax dëgg yàlla dafa nekk xar bu wér rek waaw xar bu wér ligne bi wér wér la wax dëgg yàlla moo ci ciy gën bu baax a baax a baax mm, mm. ba léegi rek euh, ñu ngi nii jàkkaar toog ak euh, Abdou nekk tamit euh, un grand champion moom tamit ñu bàyyi ko mu wax ci kaar kaar li mu xam ci kaar kaar ak Boy waaw salaamaaleykum waa Ladoum TV waa Abdou Fall ñu ngi nuyu waa Ladoum TV yëpp di nuyu champion yëpp macha allah nuyu champion Babacar son moo petit frère wax dëgg yàlla xale bu liggéey la et puis dafa am ginnaaw parce que daamloo parce que mooy mooy course mooy base moo ko jox moo ko moo ko njëkk a jox xar waaw xar bi ñuy présenté na doomu bu Boy Talla la di sëtu Karkar waaw Boy Talla kenn xam ne euh, mooy nekk euh, champion rep jël fa meilleur mâle Karkar ñëw fa jël fa deuxième kon Babacar bu jëlee xar boo xam ne vice champion champion ñoo ko produire kon kooku defe naa dal na xel. Ah. tàpp soos wax dëgg yàlla di xar bu doy waar. kaar kaar di doomu Baye Fall waaw Baye Fall euh, kenn ku ne xam ne doomu doomu Murit la boo ko Cheikh Diop benn Baye. waaw mooy papam di Boy Talla di doomu métro di doomu doomu doomu métro waaw métro kenn xam ne doomu la Gros doomu Gandhi kon teg na loxoom ci soos jërëjëf merci. soosu lan. waaye soosu ginaar ak lépp rek. am na ketchup am na ketchup am na saucisson macha allah waaw waaw. yéen a ko gis. waaw ba tey rek ñu présenté waat leen beneen euh, añal kii añal la wala grande femelle la. ki kii grande femelle la waaw. grande femelle la waaw. moom doomu kan la. Euh, doomu Mia la. doomu Mia Mia waaw. Mia doomu Nabu. waaw moom moom euh, Mia moo ko jur ak Nabu. moo jur ak Nabu ay hélas. waaw. bii mu ci quatrième portée. quatrième portée waaw. non ay doom kay moom macha allah dëgg yàlla bu ko ñëwee pour jël moom ay doom laa gën a ci ci pour gis ko waaw moo tax ma gën ci dugg mais ay doomam moom macha allah. ci góor ak jigéen lépp la man mhm. ah, nga fàttali bi. Euh, maire bi maire bi laa ko tuddee moom waaw maire bi. waaw ah, Fakala waaw champion Abdou wax ñu ci maire bi rek. waaw maire bi kii maa ko juddulu kii sama rakk moo ko juddulu Baye San jox ko Dame Lo Dame jox ko Babacar. waaw maire bi nag kenn ku ne xam ne Nations Unies moo jur nabu jël nabu bool ko hélas doomu junior ñu kuppul leen mu jur miyaa jul miyaa teg ko ci doon jeego doon jeego yaay ji doom juróom déemee la euh, doon jeego papa ji di gelawaar gelawaar Aïcha kon kooku bu duggee fi war a liggéey liggéey bi macha allah waaw kii moom wax dëgg yàlla du xaru caaxaan xam nañu ligne bi daal macha allah surtout doon jeego la doomu doon jeego la doon jeego gelawaar gelawaar Aïcha Aïcha jay naa jay naa biram jéeme waaw surtout El Hadj la El Hadj Mia Mia Junior Mia la déggoo la kii Batlin Sigi la ak Biram Jéeme ak Birayam ak góor gi parce que Mia kenn ko ne doomu El Hadj la El doomu Junior la. Euh, kenn di moo ko jur kenn di gér gér Batlin xam nga li ma la wax Don Diego mooy baayam Don Diego Gelawaar Gerabal Aïssa ak Algor Aïssa Jayna Jayna Biram Jéeme waaw Biram Jéeme kenn ko ne xam ne nii kenn ko ne xam na ko mais Jayna doomu Hawa la Hawa doomu mère bi la mère bi moo jur moo jur Hawa ak Bosco ñu seexoo. jël xawaa teg ko ci euh, Biram Jeyna mu jur mu jur Jeyna ju jël Jeyna Jeyna euh, ci boppam euh, moo jur Aïcha Jeyna teg ko ci Biram Jeyna mu jur ay Aïcha jël Aïcha boole ko algoor mu jur Gelawaar jël Gelawaar teg ko ci yaayu doon jeego waaw doon jeego jël ko teg ko ci Mia mu jur femelle bi. waaw waaw bi nag soo gisee téye nañ faxar bàyyi ko mu dem mais boo gisee ñu téye ko mu def temps dafa am lu ko waral parce que dafa prouvé dafay liggéey lu doy war parce que miir maalu gerte gi moo ko jur. muy maal bi ci biti am na fi tam ay frère am fi ay sœur di xaar bu pourvé ah da def nag moo tax ñu wax ko quoi waaw parce que xar yi bari nañ fi mais dafa pourvé di xar bu barkeel jóge ci waa ju baax ku ñuy wax daamloo ñu ngi ko nuyu à passage bu baax taamu naa lu jóge lu jóge ci moom ndax borom xol bu rafet la borom xol bu rafet boo jël alam doo ci am dara looy rëccu ba tax na gerte gi lépp daamloo la ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ñaan yàlla yàggal taxawaayam jërëjëf macha allah kon téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo Dame Lo ah mention spéciale liggéey bi am na solo di la ñaanal fan wu gudd wér gu yaram xéewal gu ne gàññe waaw femelle bi nag capital génétique bi nekk si moom lu mu jur ndaanaan la lu mu jur oor la waaw ñu fa yéene dugg ci biir rek génnee tamit benn sujet jur na fi doom bi nga xamante ni sii am na yu ngeen téye am na yu ngeen génnee di ngeen ñu wax nag lan moo tax ngeen téye boobu génnee yi ci des ñu dugg ci biir gétt gi wanaat leen yeneen sujet yi ànd ak seen télévision Ladoum TV. kaat beneen sujet bi nga xamante ni si or la ndax yaayam fa mu bokk maamam fa mu bokk ah ñu bàyyi rek Babacar nga wax ñu kii mooy kan. waaw kii mooy Aïssa mhm. waaw fii la juddoo ci gétt gi nekk doomu patience waaw di sëtu di sëtu euh, patience nekk doomu patience moom itam waaw moom tuddee ko Aïssa waaw. loolu am na solo tubaar fakkaal la waaw ñu gis beneen jeune mâle bu extraordinaire nag. bu extraordinaire. boobu seexam la mooy dem. mooy seexam mooy seexam waaw. ñoom ñu ngi ci set mois. waaw ñu ngi 7 mois seexam la mooy dem. jeune mâle bi ak kii ay seex lañ. seex lañ waaw ay seex lañ ñoom ñaar ay seex lañ. Hmm. jeune mâle bi moom bi mu juddoo. Hmm. lan nga gis ci moom. non gis naa ci moom critères yoo xam ne ni moom macha allah wax dëgg yàlla. Hmm. nekk xar bu xam ne nii am na ci yaakaar bu baax a baax. waaw élevage daal wax dëgg yàlla ñu ngi koy kii bu baax a baax daal incha moom pare nga pour ko nar a def je retiens. waaw non dañ ko bugg a téye fii pour mu liggéey. waaw pour mu liggéey. waaw Maal bi fi nekk dañ ko bugg a boole ay ay daal ñu liggéey. waaw incha allah dañ ko téye daal pour mu liggéey. Hmm, incha allah. ñoom euh, li nga gis ci ñoom ba téye leen est-ce que mën nga ñu wax lan moo tax nga téye leen dëggantaan lan moo tax nga téye jeune Maal bi. non jeune bi pour ñu téye ko maanaam day yu nekk ci moom rek euh, ci saabu mbokk yooyu moo tax ñu gën a téye moo gën tax ñu kii kii ko pour téye ko quoi waaw ndax lu ngay dem utiwaat beneen mal di jënd beneen mal euh, te juddale nga ko am ci yaakaar daal moo tax ñu gën a samp pour téye ko daal ñaan si ñu defal ñu si ñaan bu baax a baax a baax daal. Mhm. macha allah loolu am na solo nga yaakaar ne jeune mal bi fan la mën a yóbbu sa élevage tey. no war na ko mën a yóbbu fu sëri waaw ci suñu yaakaar moom war na ko mën a yóbbu fu sëri sëri sëri dëgg yàlla waaw. A yóbbu wala fu romb daal. macha allah waaw ah, mm-hmm. loolu mm-hmm. macha allah waaw ba tey rek ñu duggaat ci biir gétt gi rek indiwaat yeneen sujet ñu xool comme niñ leen ko waxee rek ba tey ñoo ngi waat ci biir box bi waaw génne fi benn añeel bu rafet añeel bu doy waar fees del tubaar fakàlla macha allah nga présenté ñu kii kii dafa mel ni sëtu maire bi la de. waaw non kii doomu maal bi la. doomu bi waaw doomu maal bi kii mooy tudd Miss Thiaroye. Miss Thiaroye Miss Thiaroye waaw. moom yaayam benn benn sëtu euh, macha allah bu Pa Mansour Mbodj. benn sëtu bitaar lañ boole yaa ji juddu si ma jël ma jël ko yaa ji tekk ci maal bi mu wàccee ko moom waaw. sëtu bi la. waaw li nekk ci ci maam ji day ñëw wuyu ci ci moom. ci moom waaw day bu baax a baax a baax. macha allah moom bi nga ko juddulee femelle mu nekk femelle par rapport ak yeneen femelle yi nga juddulee lan nga gis ban différence nga gis ci no moom macha allah mooy comme lu ma la waxoon rek dayoo bi rek euh, critères yi nekk ci ñoom daal moo tax pour ñu gën leen a téye pour gën ci jàpp pour liggéey daal moom daal lañu ci jublu pour téye pour liggéey macha waaw loolu am na solo yéen a ko gisandoo kon ñu dugg ci biir bergerie bi rek ba tey indiwaat yeneen sujet ñu xool sawaay bergerie bi li mu liggéey Dia Family ànd ak seen télévision Ladoum TV. waaw ba tey rek comme liñ leen ko waxee waaw fekkaat fi benn benn añel boo xamante ni si kii moom ah, kii xool ngeen ko bu baax téléspectateur Ladoum TV est-ce que càmbar ngeen kii Babacar Babacar kii mooy kan. waaw euh, kii mooy Miss Thiaroye Miss euh, banlieue. Miss banlieue waaw mooy Miss banlieue. mun naa ko tuddee waaw Babacar yow ay Miss rek nga fi dajale daal. waaw noo xam nga rek <laughs> dañuy kii rek di càmm rek waaw mooy Miss banlieue di doom ci maal bi. doom ci bàyyi leen ko xel. yaay ji di sëtu biram 2. biram Senior moo jur yaay ji ko mhm. macha allah macha allah loolu am na solo tubaar fakal la tubaar fakal la loolu am na solo. kon daal Babacar moom dafa capp loxoom ci soos jàpp xaram mi di leen tuddee ay miis xar yi dañoo wane seen bopp di génnee ay miis Babacar di leen gérer nag tubaar fa kàllaa waaw Abdou lan nga ñu mën a wax ci kii. waaw miis bi nag dafa amélioré quoi. parce que kii doomu Biram Junior Biram doomu Biram Biram Junior bu jigéen lañ dugal. Ah, Biram Junior nag ah, soo gisee ah, li ñu Biram Junior Biram 2 moo tax ñu Biram Junior parce que Moussa Yade moo ko juddlu benn doomu Junior la jël teg ko ci Biram 2 mu dem mu jur Biram Junior waaw Biram Junior boobu moo jur kii. moo jur moo jur moo jur yaay kii waaw moo tax mu amélioré laal ci biram géem bi laal ci góor gi bi laal ci biraayam bi kii da macha allah dina la mën a mel macha allah yàlla yàlla barkeel ko. càmbar nga ko par naa ko parce que kii soo xoolee di boo xoolee dayo bi xam ne biram jéema du ay caaxaan parce que biram jéema bu bu bu dikkee fekk si gandi fekk si euh, algor mais kooku nii rek la mën mel parce que boo gisee ne race amélioré lii mooy ras amélioré xar dañ koy amélioré. doo liggéey ci benn champ da ngay jaxasee champs yi champion yi pour mën ci génn mais Babacar vraiment fi mu teg tànkam baax na macha allah yàlla yàlla barkeel élevage am macha allah. waaw ah, macha allah yéen a ko gisandoo téléspectateur Ladoum TV Babacar li muy liggéey fii ci yi jumaa ji bergerie Dia Family waaw ñu dugg ba léegi ci biir box bi rek génneewaat yeneen sujet ba léegi ñu ngi jàkkaarloo tey beneen euh, femelle nga présenté ñu Babacar femelle bi mooy kan. madame Diop waaw kii sama benn waay bu baax moo ma ko joxoon ku ñuy wax Bas Bas Diop mu tuddee ko soxnaam waaw moom itam waxtu yàlla wàccee na fi benn porté bu rafet bu jigéen waaw macha allah kii doomu doomu sëtu Biram Dë la Biram Siñoor moo ko jur waaw waaw kii moo ko jur waaw moo ko taawloo moo ko taawloo waaw mm. mm. waaw niru na moom man yaay ji de mm. léegi kon noo fas yéene def yaa ji. waaw dama ko ci tegaal rek tegaat ko ci maal bi rek ba xam delluwaat buum gi si boy boy gi rek ba xam lan la may kiiwaat. du ñaan mu wàccaatal jigéen rek. gis nga ci sa bopp dangay ngay delluwaat sa loxo foofu. foofu waaw gis naa sama bopp bu baax a baax macha allah. li li li mu sax waaw gars ne na ku ko ma ci. moo ko xam waaw. tubaar waaw ba tey euh, ñoo ngi ci biir box bi bergerie euh, Dia Family waaw ñu dugg ci benn box nag fekk fi ay ay agneau yu doy waar. gis fi benn benn benn jeune mâle LCS bi def benn robe bu weex tàll macha allah nga présenté ñu jeune mâle bi wax ñu mooy kan. waaw jeune mâle bi euh, doomu Karkar la. yaa ji doomu guy gi. waaw euh, bu dee wàllu yaay ji di doomu sàmm moo faddam bi. loolu bokk moo di sama grand dame loo moo ma joxoon yaay ji euh, mu mu tegu ci Karkar avant muy ñëw mu ñëw wàccee fii kii quoi waaw. ah tubaar fakkaala yéen a ko gisandoo macha allah jeune mal bi rafet na trop LCS bi beneen affaire la waaw ba tey rek ñu duggaat ci biir xoolaat fi beneen jeune mâle gisaat fi beneen jeune mâle bu waar def robe bu noir non macha nga présenté ñu jeune mâle bii wax ñu kii mooy kan. waaw jeune mâle bi ñoom ñaar ay seex lañ doomu kaar-kaar lañ. moom ak kan moom ak ah, moom ak jeune mâle bi mu laaj. moo bu weex bu ñuul bi nii ay seex lañ. waaw macha allah doomu kaar-kaar ñoom seen yaay doomu booy taala la. Mhm. seen yaay ji gétt gi la juddoo yàlla dafa def mu daanu bu muy daanu mu mu taaloo fii waaw seen yaay euh, doomu boy taala la euh, moom yaayam doomu karkar la aussi maanaam euh, karkar maamam la papa la a nekk sëtu doomu boy sëtu boy taala bi waaw sëtu boy taala la quoi hmm, waaw ndax ñoom seen seen seen ñii seen yaay boy taala ku jur ku jur seen ku jur seen yaay karkar jur ko waaw barka bi seen yaay itam mu ngi si gétt gi mooy si bu ma njëkk a jënd bu daam njëkk jox moo moo taawloo yaay ñii waaw moom yàlla dafa def mu daanu gétt gi waaw bu muy daanu mu bàyyi la fi pour euh, mooy mooy premier doom ay taawam waaw nekk ay Malick ñoom ñu ngi toll 6 mois le 25 bi lay am si mois fakalla téléspectateur Ladoum TV yéen ko gisandoo gis ngeen ñaari seex yi tubaar fakalla macha allah da leen fas yéene téye wala fas ngeen leen génne waaw yii am na ñu ciy génne am na ñu si téye waaw am nañu si génnee am nañu si téye waaw incha allah non non non gi du tàng café gi du tàng ñun moom mbiri Baye Fall lañ koy def rek café gi du tàng incha allah ku ñëw sa war sax nekk ci rek incha allah dañ ci am ci kàttanu yàlla hmm, waaw. ah jeunes éleveurs yi ñëw leen fii de jeune mal yi tubaar fakkal la ay sëtu booy taala tubaar fa la macha allah xar yu rafet esthétique xar yu am macération gars yi ku ko bëgg rek boo ñëwee fii. caaroy jumaa ji bergerie Dia Family macha allah kër Baye Fall la day xéewale kafe gi du tàng macha allah ku ñëw ah man day càpp naa sama loxo ci soos ndax am na bu ma fi gis te dinaa fi doxal si waat mu xool nu koy foqatee. waaw euh, comme ni leen ko waxee rek ñu ngi waat ci biir box bi nag ci biir box bi ñu gis fi benn waay bi nga xamante ni si li mu liggéey ci bergerie Dia Family tubaar fakkal la ñu koy wax bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel kuy baayam ñu ne booy taala kii nekk magu pénc mi tubaar fakkal la kii nekk magu papito tubaar fakkal la kii li mu li li mu am nii rek li mu am nii ay rakam ay magam macha allah lu ñu gis ci xar bi ah bàyyi leen ko xel ak lu ak élevage bàyyi leen ko xel bàyyi leen ko xel macha allah Babacar nga présenté ñu bàyyi leen ko xel. waaw bàyyi leen ko xel moom am na la rek nekk fii sama grand dam joxoon ma ko waaw wax dëgg yàlla bu may am deux mois laa dem gis ko mu neex ma trop waaw si la waxtaana moom mu jox ma ko mu bàyyi ko ba am trois mois ma jëlee ko indi ko fii tekk fii ñu liggéey. moom yaay ji eh, bu bu ko jur eh, Mia moo ko jur waaw yaay ji moom laa tuddee mère bi mère bi waaw. Mm. macha allah kii nekk doomu mère bi ñu teg ko ci eh, booy Talla moom mu juddu moom ci deux mois nga ko gis nga recruter ko si deux mois est-ce que ni mu mel nii noonu la meloon ci deux mois ba tax nga jël ko lan moo taxoon nga xool ko rek nga seppi ko ci xar yi nga jël ko. waaw non mooy ma deux mois yu mu gis si moom. ci laa xam ne nii maal bu élevage ñëpp di dégg la ñëpp di soxla ci laa dem nag gis ko xam ne ni kii daal wax dëgg yàlla champion lay doni ëllëg te dana mën ay production ci laa waxtaan sama xarit Dame mu daal di ko yombalal lool waaw boole naa ay yéwénal boo xam ne nii daal macha allah dëgg yàlla loolu moo taxoon Mady Kirikou daal pour jël ko. Hmm, ah loolu am na xel bàyyi leen ko xel ñu gis production am nag mu def ay mbote yu yéeme ay añel yu doy waar. tubaar fakkaal la moom mi ngi toll si ñaata weer. Euh, mu ngi si 23. 23 23 mois waaw. Mm. ah. kii de moom xaru concours la xaru podium la. am nga yaqin yow war ngaa mën a dugg concours ba yéeg podium ak kii. waaw non am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yaakaar bu baax digg yàlla maal bi macha allah euh, maturation mi daal wax dëgg yàlla moom moom tawféex na waaw nañuy ñaanal rek daal incha allah. macha allah yéen ko gisandoo nee na maal bu am yaakaar la war a dugg concours war naa mën a dugg concours war naa mën a yéeg podium ndax baayam a ah, am na lu mu def ci élevage de kuy baayam ñu ne la Boy Talla tubaar fakal la nekk fi champion ah macha allah ba léegi euh, ñu ngi taxaw ak suñu benn doomu ndey Abdou Fall moom it euh, am na lu mu ñu mën a wax ci bàyyi leen ko xel bi waaw champion bàyyi leen ko xel de soo laajee Babacar ni ko war naa mën a dugg concours bàyyi leen ko xel bu duggee concours day wàcc parce que Mandela maamam jël na émission xaar bi Sénégal première Boy Taale baayam mooy champion rep Gelwaar maamam vice champion saladam Nations Unies maamam meilleur saladam kon kii euh, ah, kon kii war na mën a <laughs> war na mën a compétir waaw bàyyi leen xel nag euh, soo gisee mu liggéey liggéey bu rëy bi kenn du ko laajte champion Damlo moo ko juddulu mu bokk ci captage génétique bu riche sànq wax naa ko ci yaay ji euh, bàyyi leen ko xel doomu Boy Talla la Boy Talla ku nekk dégg na mooy meilleur champion rep di doomu di doomu di doomu métro métro doomu Grossis Grossis doomu Gandhi gandi doomu Candela Candela doomu doomu kon kooku nii la ma nii la war a mën a mel bu ñu jëmee ci arrière para yaay ji dañoo jël euh, gelawaar te ko ci benn benn sotu biram jéeme mu jur doon jeego ñu jël doon Diego teg ko ci Mia mu jur yaay ji bon Mia nag euh, Nations Unies moo jur nabu ñu jël na bool ko El Hadj El Hadj di doomu Junior Amdi Diop juddalu ko Junior di doomu Kennedy Kennedy Gier Gier doomu Patten Sigi waaw doomu Junior boobu moom lañ boole ak nabu doomu Nations Unies mu jur Mia jël Mia boole ko ak Don Diego doomu Gelwaar mu jur mu jur mu jur yaay ji jël yaay ji teg ko ci boytaala mu jur mu jur bàyyi leen ko xel macha allah kon kii nii la mën a mel de champion la de dëgg yàlla dafa leer kon ak lu élevage turam la wuyoo bàyyi leen ko xel kon nañ ko bàyyi xel ndax doon na maal bi nga xamante ni sii lépp a ngi ci moom baabakar tey jii tey jii bàyyi leen ko xel bii fan nga gis ni wala yóbbu sa élevage. non gis naa ne mën na ko yóbbu fu sëri waaw gis naa ne mën na ko yóbbu fu sëri wax dëgg yàlla ndax lu mu gis mu wàccee fii moom doy doy na xel bu baax a baax a baax dal na xel bu baax waaw. mu wàccee fi moom macha allah dal na xel war na mën a yóbbu élevage bu sëree te gis naa ko te am naa yëqin dana ko yóbbu foo xam ne nii daal fu kawee sama njortul lay doon waaw macha allah. Babacar Sow Dieng bu ñu ñëwoon nga foog ne du ñu foqati xar waaw <laughs> waaw xañ na mën naa ñu mais nañ ko bàyyi ñu liggéey ci ba ci kanam rek élevage liggéey ci rek waaw ci élevage liggéey ci kanam rek euh, ñu door koo mën a génne waaw waaw macha allah. Ah, loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV yéen a ko gisandoo yéen a ko déggandoo Babacar nga fàttali ñu sa adresse ak sa numéro téléphone pour ku bëgg ñëw fii ci bergerie bi. adresse maa ngi fii Thiaré Gaz Thiaré Gare avant ci jumaa ji rek waaw sama numéro téléphone Orange bi 77 535 38 59 bu dee 78 bi 133 23 54 mooy sama adresse waaw ku ma ciy woo rek incha allah dañ mën a jëflante jëflante boo rafet daal ci kàttanu yàlla macha allah. li ñu leen ko waxee woon rek lem du jiwu waaye dañ koy dog ba beneen. téléspectateur Ladoum TV gis ngeen li fi nekk tubaar fakalla bergerie Dia Family li mu liggéey ci élevage ànd ak seen émission fi ma jaar comme li ñu leen ko waroon waxee rek seen émission fi ma jaar nag nekk na émission bi nga xamante ni si xeebul benn bergerie xeebul benn mbaar tubaar fakalla éleveur yëpp la boole ànd ak ñoom di liggéey nag liggéey bu mucc ayib di génnee seen i produits partout dans le monde ñëpp di la seetaan fi mu nekk nii seen télévision Ladoum TV day génn mi ngi ci sous région yi day génn fu ne di génnee sujet yi nga xamante ni si moom la gars yi di liggéey ànd ak seen télévision Ladoum TV ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneeni émission fi ma jaar jërë dina ànd ak yow saytu wér yaram santé animal dina saytu sama laanu mi dundee fii ci Ladoum TV TV jox la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar danga mm. ko seetaan bu la dara raw visibilité dinga am promotion dinga am nanga wane sa bopp ci Jaja bi nga am ndam Ladoum TV mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum